asalaamaaleykum àdduna wërngal këpp ñëpp nuyu nañ leen ziar leen ñaanal leen sàkk bu baax ngeen di ñaanal di am mbégte ak kontaan ci ànd benn ànd ak ñun ci seen émission tegtal di wax ne seen bët suñu mbégte jëm seen nopp suñu bànneexu la amin seen taaxirlu waral suñu farlu tegtal du tàyyi mukk du bàyyi mukk ci seeti leen ko xam ne que njëriñ leen ci seen tudd ñaan yàlla ñu bokk gis ko ci tegtal indi gan goo xam ne gëj ngeen ko gis lool tegtal ñu gëj ñu ko doon wër mu réer ñu ñu koy wër ko wër côté Sine di ko wër wër ci Europe bi di ko wër fune mu feeñe côté Mali nag ñu lijjandi ko ba indi ko kooko di kan Jama Kanté Jama Kanté borom jinne yi nga xam ne daan nañu invité lu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg Jama Kanté feeñaat na ku ko doon wër waajaak nii gis naa ko numéro yaak nii ci écran bu baax a baax Jama Kanté looy nuyoog àdduna wërngal këpp bi lay seetaan ci Tektal TV ñu gëj la gis trop mu yàgg lool nga ñëw nekkoon Mali euh, bàyyi Bakel. léeg-léeg di ñëw léegi nga nekk fii ci Grand Yoff nga ñëw nga sol yére bu seer bu rafet boo xam ne que président bi sax yaa ko dàqale yére loolu néew ñi lay seetaan ci Tektal TV surtout waa diaspora bi. alhamdulilah euh, ñu sant yàlla subhaanahu wa euh, nuyu waa Tektal. Hmm, Tektal TV nuyu Tektal émission Tektal sa émission kontaan. Hmm. ngeen seet si ma tey. maa ngi nuyu. cosaan aada yi kilifa diine yi kilifa aada yi xam naa ne olof yi loolu mais. muy tane waaw léegi moom mi ngi mi ngi tane. donc alhamdulilah ñuy ñëpp. Hmm. yàlla def jàmm ci réew mi. Hmm. yàlla def jàmm ci réew mi. Hmm. yàlla dimbale ñu yàlla jàppale ñu donc gën a ñu gisee. donc macha allah tey euh, ñu ngi Dakar alhamdulilah. alhamdulilah maa ngi leen nuyu tamit. yow Cheikh vraiment. maa ngi lay sant di la gërëm. donc euh, ay at at at comme ni nga ko waxee. donc mi ngi noonu. donc alhamdulilah. te même numéro yi mooy dox. macha allah. macha allah jërëjëf euh, Jama Kanté euh, borom jinne yi euh, balaa ñuy sori na dañ leen di bindal numéro bu baax a baax ngeen bàyyi ko xel bu mu leen rëcc bindal bindal maire foofu bu dee mënul bindal boppam paa bi tamit bët yu neexul. ki wax ci saal bi mu noppi ki dox ci mbedd mu dugg ci biir Tektal mooy daw ci biir Tektal TV ñu invité Jama Kanté borom jinne yi borom Bakel temps yi nag Dakar ak Mali Bakel day baaxante daal mais woo rek

beneen bi 78 315 53 15 78 315 53 15 numéro yëpp am na whatsapp nga dis ko soxla lu mu ci mën mu def ko leneen ñu bàyyi yàlla ma xam tëlewul dara te mën na lépp fi mu nekk ci Dakar nag nekkatul ay Pikine nag yooyu léegi mi ngi Grand Yoff euh, fi nga nekk ci Grand Yoff boo doon tegtal nit ba mu ñëwal boppam noo koy waxee. ci wetu marché bi rek boo ñëwee ci wetu marché bi bu dee ku jógee Liberté 6 bu rombee bi. voilà. Euh, première mbedd deuxième. mu jàdd ba troisième kii mu jàdd. voilà ku joge ci côté Patte d'Oie bu jàddee jubal ba sës rek. voilà bu hmm. ñëwee côté Patte d'Oie. Hmm. voilà boo ñëwee boo laajtee fu ñuy jaayee ginaar yi. waaw fu ñuy ginaar yi. waaw nga taxaw woote. woote incha allah ñu jël si la. Diama bu dee ko nekk bitim réew euh, ay bagages am GP yi dina ko yóbbul. GP Diachel. Hmm. voilà GPDHL incha allah. incha allah boo boo yónnee sa adresse. Hmm. donc lépp lu ñuy sakku lii ñu bindi adresse bi yëpp ñu jox ko GP am ñoo xamante ne GP moo leen gënal. waaw am ñoo xamante ne DHL moo leen gënal. waaw ku ne bu ko ci neex donc voilà ñaar yëpp am na ay GP am na ay DHL. Hmm. yàlla subhaanahu wa taala. macha allah jërëjëf Diama Kanté at yéen la gisul diggante bi da fee sàkku ji woon xam-xam da nga fee yokk xam-xam sa xam-xam dafa wàññeeku wala du Diama Kanté bi nga xamoon ak bii ban moo gën a aay. alhamdulilah ñu sant yàlla subhanahu wa yàlla mooy njëkk yàlla mooy mujj. Mm-hmm. Euh, ñun famille suma wulu kante. Mm-hmm. donc ku xam wala ku dégg même ku gisul dégg nga histoire am. histoire am donc ñun ay borom xam-xam la ñu. moo mm-hmm. suñ cosaan. résumé ñu histoire bi nu mu demee. sa moo suñu aada. mooy parce que ñun boo déggee suma wulu kante. waaw suma wulu kante borom jinne la. borom jinne la donc. yan la defoon. bon bari na jaloore yi bari na parce que. Hmm. buur la. du hmm. xamante buggul gis beneen buur. Hmm. buggul gis bu dëgg beneen tur. donc di jàppale ñu xamante ne képp ku nekk buur. nga nekk ci ci ci ci ci ci mande. donc moom. moom. Ah. nga lay jàppale. nga xam nga donc su ma wër donc bu ñu toogee tey. di wax jalooram. non comme benn euh, jëf jëf ju rëy jum defoon rek wax ci benn. parce que moo moo moo jàpp Sunjata. ah moo jàpp Sunjata. oui jàpp Sunjata. ok xam nga. Mhm. donc Sunjata Keita. parce que buur la. buur la mais Sunjata Keita. waaw papam. Mhm. Sunjata papam ak suñ ak Soumaoro Kanté. Mhm. ñoom la leen ànd. ñoom léegi Sunjata bu ñëwee. xam nga àdduna dafa am ñu sa wet. ñu la bëgg ak ñu la bañ ñu bañ donc ñu la bëggul euh, euh, Sunjata mhm. ñoom dañu ñëw yow lii depuis sa temps papa lii da ko war a jàpp nga rey ko mhm. donc moom mu dëgg loolu loolu moo ko yàq affaire am mu yàq affaire am mhm. sinon Soumaïla Kanté doom Sunjata la ndeysaan parce que Soumaïla Kanté ak papa Sunjata Keita ñu mu temps boobu ñoom la fekkee Sunjata judduwul judduwul résumé mu ko tuuti li nga wax nii ci saraxule nga wax ci saraxule. saraxule. waaw du saraxule nga dégg. waaw waxal ban la. Sunjata Keita. ale ale ni Sumaworo Kante fa. Sumaworo Kante ani Sunjata. olu hmm. tile bɛnna. Hmm. mais Sunjata ale ni Sumaworo Kante tile ma bɛn. Hmm. parce que Sumaworo Kante tile ani Sunjata fa olu de mais Sunjata fa tile tɛmɛna. Sunjata nana Sumaworo Kante nana mais mɔgɔ o mɔgɔ ni mɔgɔ minnu b'i kɛrɛfɛ olu de bɛ ɲalen fɛ olu de bɛ tiɲalen fɛ hmm. donc dɔw nana ko munna e bɛ sɔn e bɛ Sumaworo Kante bila Mande e hmm. bɛ sɔn mun na donc masakɛ fila u man ka ɲɔgɔn sɔrɔ sigiyɔrɔ kelen na hmm. aa ah, o de ye Sunjata fanga tiɲɛ donc nɔɔrɔ la. ok kon nuyu naa Fatou Konaté ak Moussa Konaté ca France ñoom waa Xaar Yàlla ak Ganda ak euh, Alima ak ñoom Khadija ba ci Mandaw waaw ñoom ñëpp nuyu nañ leen bu baax a baax ci li wax defe naa foofu mbokk yi foofu lay doon quoi Fatou Konaté France ak Sissoko Habbatu Sauda kon baax la jërëjëf kon ah euh, léegi da nga gën a ay daal hmm, ak kan ba ma sax am ko ma fàtte ci ñoom kan ok waaw moom moom day tibb si daal day waxtaan mi ngi euh, leen Tektal TV bu baax a ba suñu bés émission bu ñëw ngeen am ko. léegi kon daal xam-xam diggante bi ba ñu jàpp ne jàmmaakaatam 2024 2025 2026 muy gën a aay jàmmaakante yi weesu. macha allah. macha parce que ñu sant yàlla. bi nga réeré nag yaa ngi woon Mali kon. maa ngi ci suñu cosaan yi. ci cosaan yi. maa ngi suñu parce que maama yi. Hmm. papa yi. Hmm. Mm-hmm. gaañu nañu faatu nañu. donc euh, man maa nekk seen ginnaaw. Mm-hmm. donc mënuma toog Sénégal. Mm-hmm. parce que xaaj bi. Sénégal xaaj bi Mali. lu tax ñu nekk ñu am ñu Sénégal. mooy papa yi. dañ leen woo pour ñëw liggéey. déplacer leen ñu ñëw liggéeyal ñuy dem. ñuy dem yàlla def ñu ñoom am na suñu benn papa bu toog Bakel. Mhm. donc loolu moom foo loolu moom moo indi foofu. Mhm. mais instant yi mënuma toog Bakel. mënuma toog Bakel parce que donc kilifa yëpp faat nañu. Ah, kenn kenn nag fa. donc man maa nekk ci cosaan yi. man maa mhm. nekk ci aada maa nekk foofu. sama taalibe papa yi donc. kenn nag fa. donc man maa nekk ci sajaada bi. donc alhamdulilah. donc maa sant yàlla. nga xamante ne. Euh, bàyyi nañu. yokk na am ñoo xamante comme comme ni ma la olof yi leerul mais dinaa expliquer ñoo xamante ne mun nañu hmm. comprendre. mën na comprendre. parce que am na bagage yoo xamante ne ñun suñu cosaan ak suñu aada dafa am bagage yoo xamante ne. Hmm. donc chaque année. dafa am li jël. jël chaque année dafa am li ngay jël. Hmm. parce que euh, sa at dafa am yoo xamante sa at bu ëggal foofu. yenn bagage yoo xamante ne mënoo ko jël. donc alhamdulilah loolu moo tax donc. ay at at at at at donc réer nañu. donc. alhamdulilah maa ngi nekkoon ci. Mali hmm. yi yi ci bagages yi. nga nekkoon ci Mali. dugal ci Bamako Mandé. Hmm. voilà yokk xam-xam beeg lool loolu mais Mali bi sax dina jëm mais Jama Kanté. Hmm. Jama Kanté da am loo wax lu doy waar. loo xam ne wax nga ba ko ci suuf. te loolu buñ ko indee ci kaw dina xaaj ni ñi ñaar. ñi dina la gëm ñi duñ la gëm. ñi la gëm nga fexe jox leen ndam. ñi la gëmul mhm. nga fexe teg leen gàcca mhm. ban gëm la mhm. da nga ne dangaa yor ñaan goo xam ne que ku bëgg alal da koy am léegi jale ko ñetti fan bu àggee quarante et jours dina téye huit milliards Macky Sall sax ba mu def déclaration patrimoine huit milliards la amoon kon ku tëb am huit milliards ci diggante bu gaaw quarante et jours moom balaa kii nga romb ko ci am xaalis moom léegi nag loolu lañ bëgg nga ñëwal ñaan boobu nu demee yokku leen télé bi déglu ko bu baax Diama Kanté moo ko wax mi ngi nii am na ñu lay gëm am na ñu la dul gëm ñaan gi nu muy demee ko bëgg alal. bon alhamdulilah da amul benn danger nag wax alhamdulilah sant yàlla seex. waaw man lépp lu may def. Mhm. damay sóoraale ëllëg. muy sóoraale ëllëg. ci yàlla. ci parce que boo dundee téeméeri at. Mhm. mujj bi dee la. Mhm. doo ànd yaay ci bammel. doo ànd ci xarit. doo ànd jabar. sa jabar noo ko bëgg bëgg bëgg doo ànd ak moom ci bàmmeel hmm. sa jabar lu mu la bëgg bëgg bëgg doo ànd ak ci moom bàmmeel hmm. donc yow kese hmm. ak say jofet ak say jëf nga fay lëndëm la nekk jàng la képp ku lekk dërëm jàmbur may la ko dafa la jox sama aaju mu faju kon mm. aaju boo fajul da nga ko war a delloo nga xam ne ne lii yàlla moo ko dogal. Mm. kon boo ko lekkee may la ko boo fay la aduna waaye am naa doole du ma ko fay wala am naa doole jiw mënu ma ci dara mais yalla yàlla mën na ci dara. yàlla du yàkkamti yàlla mi ngi gis lépp mm. du yàkkamti donc nga jël dërëm jàmbur suxalam fajul. Mm-hmm. da nga ko war a delloo loolu yëpp dama koy waxtaanee sama sama sama. Euh, mboq maara yi. da nga koy dellu ah, ah. donc soo mbokk maara yi. ah da nga koy def yow kon. si. Hmm, hmm. fajal soxlaam fajul mu ngi dellu xaalis mais looy lekk xamante ne moom ko parce que moom mayu la parce que moom ñëwul fekk si la maye la. Hmm. parce que dafa ñëw pour adam faju donc mais li ma jaaxal hôpital ku faju tanewoo duñ la delloo sa xaalis. mais hôpital ak sunu aada ak sunu diine. est-ce que du benn la. Modou hmm. benn. non non man d'accord naa leen bu dee da ngeen waxante wér bu wérul nga delloo ko xaalisam. waaw bu dee da ngeen waxante mu bu ko amul nga delloo bu dee da soxla bii bu dee dafa bëgg tukki mu tukki bu wérul nga delloo bu bu ci jotul nga alal léegi nag bu dee nag deen koo teg garantie boobu hmm. d'accord naa. Hmm. mais bu dee nag da ngay ñaan yàlla rek moom bëgguma nit ki jël engagement bu diis boobu. non Cheikh. xam nga ci àdduna bi ñu nekk nii. yow mii balaa ma lay laal. kon dinaa xam yow man mun na la faj. ah kenn nga xool nga. non ah, bu dëgëree nit bul jël nit xamante ne yow mënoo ko faj. Mhm. kon nag war na la loolu moo tax nit ki képp ku ñëw. Mhm. balaa ma lay laaj balaa ñuy waxtaan d' abord balaa waxtaan bi sori il faut ma seetal la d' abord. seet ba pare. que yow. sa aaju ci man la war a faju si am dëgg donc dañ ci ñëwaat loolu. Mhm. donc mbirum alal bi tamit. waaw man man soxla ma. dërëm jaambur soxlawul dërëm jaambur parce que ku lekk dërëm jaambur boo fay la àdduna àllaaxira da nga koy fay man ne yàlla rek laa gom ci àdduna mm-hmm. man samay jinne yi ak mm-hmm. samay rawaane yi mm-hmm. yàlla moo yàlla moo ñu bindi moo leen bindi lépp lu ñu mën a def il faut yàlla nangu ko parce que man daal lenn moom ma neex ci dama jël say numéro gis ne numéro yi ma la doon invité lu ma dix ans ci ginnaaw mm. même numéro yi nga yor loolu daf may neex ci nit toog na réeroon nga ma nag xamatuma fu ma lay jotee daa nga tuxu boobu moom tuxu comprendre na ko nga dëkk fii Pikine ëllëg nga nekkaat fee loolu mais du sore quoi parce que boo demee Bakel ñëw fi nga nekkoon nga bàyyi ko ñëwaat loolu xel nangu na ko mais li nga wax nii dafa gën a dalal sama xel ne kuy faj ku gisul da nga koy delloo xaalisam te looy dugg da nga ci am ndam loolu moom bëgg naa sëñ bu jël garantie yooyu mais mais c'est ça xam nga nit yow boo demee hôpital mm-hmm. boo demee hôpital mm-hmm. nga egg ci bureau médecin bi mm-hmm. nga ne ko sama bopp mooy metti donc médecin bi. dëgg na la. waaw il faut mu def consulter. waaw lan mooy indi. problème bi problème bi. fan la jógee. fan bi xam. Mm. donc médecin bi du ñëw bind la ordonnance sans mm. condition. Mm. donc sëriñ ak euh, médecin euh, médecin. Mm-hmm. ak traditionnel. toutes mm-hmm. la ñuy wute. la. donc nit bu ñëwee ci sëriñ wax la woo expliqué bi ay mbiram yow tey nga woo ma nga ne ko man problème lii la am problème lii la am dëgg naa la de. mais loolu duma ko basé. doo ci basé il faut mu seet. il faut mu si xaar d' abord. donc ma xam kii war naa ko faj. war kii war na ko faj. Hmm. kon bu la wooree kii war ma ko faj. Hmm. dama lay wax fi nga war a jëm. fi nga war a jëm moo tegtal la. Hmm. si yaa may dëgg waaw donc su fekkee mun na la faj dama lay wax. mën naa su fekkee million la loolu ngay indi su fekkee milliard la. loolu ngay indi boo indul donc du mu la laal. Hmm, exemple bi day ndur na seer leen moom. non. Ah. Hmm. man. mais am nga yërmande daal non mais man xam nga seex. Ah. comme lu ma expliqué. man dama bëgg a ñëw wax waxal ba pare. man milliards yi moo nu ñor quoi ba pare. voilà donc ah. man. Hmm. Euh, rek laa gëm. ku dul yàlla. bokkuma ci dama am yërmande. yor yërmande dafa am tey ji yàlla nee na bul dem jël yërmande yërmande booy yow nga teg la yow sa bopp nattu. di yow question bi yaa ngi wiiri bi ma la laaj yi laa soxla. nga ko foofu laay ñëw milliards yi maanaam tey xaaral ma waxaat ko ngeen mii toog borom jinne yi nee na yor na ñaan goo xam ne que ku bëgg milliard dale ko ci ñetti fan mën na nekk mais bu amee 41 jours. di nga téye huit milliards loolu waxal ko sa bopp ñu dégg. waaw wax ko parce que euh, man maa ko jottali parce que ba léegi waxu googu waaw waxal. man waaw. képp xamante ne. waaw. yaa ngi bugg alal. bëgg alal du ma sacrifier kenn. doo kenn. du mu rey kenn. doo rey kenn. du ma saraxe kenn. doo naa kenn. dinaa la da liggéeyal alal. trois jours la ci biir trois jours. ci biir trois jours yi. nga gis résultat. nga gis résultat commencé gis sa alal. boo 41 jours. Mhm. nga am 8 milliards. 8 milliards. 8 dafa am condition. condition bi nu muy demee. bala ñuy tàmbali. waaw. da nga may garantie. Mhm. parce que alal bi. Mhm. boo ko amee. waaw balaa nga ci lekk. balaa nga ci jënd say oto. balaa nga ci jënd say kër. balaa ngay ubbi say projet. donc ñetti jàkk. ñetti jàkk da koy tabax. barke rasul lay. billaay wallaay. ñetti jàkka. ñetti jàkk da nga koy tabax wala ñetti jumaa sax waaw. Oh, mm-hmm. may dégg. ñetti jàkk nga tabax ko. Mm-hmm. nga bàyyi ci xel ci daara yi. daara yi nga bàyyi ci xel ñoo xamante ne amuñu doole. Ah, lii ci garantie bi la bokk. bi la bokk. Mm-hmm. boo deful loolu alal bi boo ci jotee. boo ci balaa ngay jël ma waxaat. balaa ngay jël jënd ubbi sa projet wala jënd sa immobile jël sa oto. xaalis jàkk yi ngay jël. xaalis daara yi ngay jël. Mm-hmm. xaalis néew doole yi ngay jël. Mm-hmm. jox leen. jox boo deful loolu. Mm-hmm. alal bi boo ko amee. même boo jëndee ay ay kër lu jeex. ubbi projet lu jeex yëpp day tasaaro day dem dem dem dem ba nga yalwaan. ba nga yalwaan ni. <laughs> billahi wallahi tallahi. mais léegi ki mën na leen. non non c'est-à-dire dañuy wax lu leer. lu leer lu leer garanti parce que lii. ji rawaane li may yor. Mm-hmm. jullit lañu. Mm-hmm. dañuy ñëw pour jàppale. Mm-hmm. lislaam yi. l'islam. xam nga xam nga tey ji yow nga ñëw nga fekkee am na ku tabax jàkk. xamoo kan moo ko tabax. jinne yi mën nañu ko tabax mais non ñoom jinne yi dañuy ñëw loo gis àdduna sababu la. donc dañuy uti xamante ne pour jàppale doomu aadama yi. ñu xamante ne jinne jullit lañu. l'islam lañu. yaa ngi may dégg. baax voilà donc dina yu baax ñooy joxe ci alal boobu. donc balaa ñuy joxe ci condition. ah. Ousseynou li kon yéen a de léegi tekki jot de. yaa ngi may dégg Ndiaye say na ci alal boobu donc charge bu ñuy def. Mm-hmm. sarax yi première première. Euh, ah sarax yi baal ci laxas jaan dafa diis. non sarax yi mais da ngaa dem ba euh, onze million ou bien douze millions ou ah. ah bon sarax yi. sarax yi kese mais loolu moom man maa lay. mais mais bu weesoo foofu lay yem. foofu lay yem. man maa man man maa lay garanti liggéey bi trois jours la. ba doo fi nekk naan ko cuuraay bi lay jëndaat. non lay defaat bu xasee def rek jeex loo gis loo loo gis dafa am lu ngi war a loolu ay càngat la wala lan la lu muy sango wala yaay toog defal ko sa bopp. bon salax yi. waaw. ñeenti nag bu ñuul. bokk na ci. ñeenti nag bu weex. bokk na ci waaw. ñeenti nag bu xonq. bokk na ci. xar yi tamit ñeenti ñeenti la. ñeenti ñeenti la. Mhm. béy yi ñeenti la. ñeenti ñeenti la. quatre-vingt-dix grammes or. quatre-vingt-dix grammes or. Mhm. parfum saybul jin. parfum saybul jin. ak cuuraay wirdu bi. ak cuuraay wirdu bi donc nag yi yëpp. yooyu yëpp day dem ci l'islam. ci l'islam. dañ koy saraka ci lépp loo xamante dañ koy def. Mhm. ci yoon l'islam. mais li nga wax ni waragul mat six millions de. non ëpp na. li nga lim ni ah, am or bee ko tax. ëpp na. ëpp na fex. Ali ah, moom ñaanu ponkal la kon. non hmm. c'est-à-dire xaalis mooy liggéey xaalis Seex. dinaa wax leen. Hmm. nekk ci àdduna. Hmm. di liggéey doole. da ngay dee doo am. <laughs> waaw billaay wallaay. <laughs> da ngay mën nga am rek après du dépassé te nga am vingt mille après tey après nga am cent mille franc. nga toog ñaari weer doo am cent mille franc. pour nga gis ñu ne la kër gee mosoon bee ko moom yomb. comprendre mais xaalis mooy liggéey mais loo gis yoo xamante ne am nañu milliards am nañu lépp. dafa am fu ñu jaar. mais liggéey kese soo fekkee liggéey kese kese kese kese nga jóg depuis six heures du matin sept heures du matin <laughs> xam nga. Euh. ay non ay minaan yi. Euh. xam nga fekkee ñoom ñooy dàq ñëpp alal. non man kay démb rek maa liggéey rek. non mais boo xoolee tubaab yi ñu yor ñu yor wàllu saak. Euh. ah wàcce camion yi saak. <laughs> su fekkee liggéey doole la <laughs> mais no non alal du liggéey doole. du liggéey doole liggéey la déet gisoo da ngay dégg daan président bi lay def du ñàkk. ci ah. bi lay toog. non c'est ça liggéey lu métti li moom saa donc mi ngi noonu. Eh. donc loolu moo tax nit ki. Eh. xaalis mooy indi xaalis. ma loolu moo aussi. Eh. xam nga bu waxee da ngay liggéey alal. Mm-hmm. donc xaalis mooy indi xaalis. Mm-hmm. bëgguma aussi ñu xamante ne bala pour nga liggéey si alal boobu. Mm. il faut nga am fond. il faut nga am fond xam naa li nga wax. xam nga fu nga am fond. Mm. mais yoroo ma dara dara dara dara. yoroo ma dara pare ne bëgg naa ci huit milliards yi. <laughs> mais mais c'est ça. c'est ça tey di entreprise. Mm-hmm. wala nga yor sa liggéey ak mm-hmm. am nga tuuti. Mm-hmm. tey ji da nga war a am da nga war a bind benn projet. donc projet boobu. dafa ñëw trente million wala dafa ñëw ay quinze million yow amoo xaalis. yow vingt yow yow cinq million nga am wala six millions nga am. donc simila googu il faut nga jëlaat nga nga nga nga liggéey ci pour nga mën a am treize millions wala pour nga mën am vingt millions pour nga réaliser sa projet mais li ma jaaxal ci li nga wax ci milliards yi nii li ma jaaxal mhm. euh, ku yoroon oto bu jar quinze millions boo yoroon dix millions di ko jënd kenn du la jaay mhm. te dix millions baax na mhm. yow da baax nii rek ba yéene nit ñi nga xam lu tolloog onze millions douze nga def leen milliardaire euh, ba wala li muy def ci jàkka yi moo la ci neex ba nga koy def wala parce que wala baax la rek na non. yow defal nga ko yàlla defal nga ko say mbokk. sama mbokk. waaw balaa may wax sama mbokk nga naan da nga jël exemple sama bopp. sa bopp waaw may may cinquante millions di am problème génneel. comprendre cinquante millions may ma ko. <laughs> c' cinquante millions avant. dinaa la jox lu ëpp loolu. gis nga ah. gis nga gis mm-hmm. ngay jël exemple keneen. Mm-hmm. jël exemple sa bopp. man daal gis naa bi ma fi tudd. fan yi bébé Mouhamed Diop ñu ngi koy ñaanal ñaanal soxna si mu gudd fan ak wér ak ñëpp ak màggam ak kii rakkam yëpp gis nañ ne moom gis nga bett nga ma ak xewul am solo daal boo am eh, ànd ak tàlli di jégalu ci yeex ñàkk ñëw béeg yooyu ndax jaawale bis yi ak yooyu mais cinquante millions moom booba ko joxee di wàcc moom ñëwee nga ko ah Cheikh Cheikh xam nga ah. cinquante millions cinquante millions waaw bu la neexee boo deful cinquante nga def ma am milliards yi waaw test bi doon ci man non xam nga cinquante millions ñetti fan moom dafa yomb li xam nga cinquante millions hmm. boo ko déggee lu rëy la mais du xaalis. du xaalis. xam nga. Mm-hmm. daal bu rafet daal daal bu cher. waaw yére bu cher. Mm-hmm. xam nga oto bu cher. waaw oto bu cher oto bu baax sax cinquante millions doo am. xam naa ne waaye yow man kay dem naa boutique ñoom. comprendre nañ di Maxtaar mais tur bi. Euh, boo ko déggee cent millions mu gis nga gis nga seex. waaw man. mais léegi laa foofu laa bëgg maa ngi nekk ci ñëpp. Mm-hmm. damaa yor xam. yokk damaa ñëw pour dimbale doomu aadama yi. Mm-hmm. Cheikh waaw. li rawaan yi ma yor. Mm-hmm. rawaan l'islam la ñu. rawaan l'islam donc man. Mm-hmm. amul benn conséquence. parce que dafa am lu xamante ne. léegi dafa am lu ma la bëgg a wax. Diama Kanté borom jinne yi. lii nga wax ni ñaanu huit milliards yi nii Sénégal yi ñuy seetaan dix huit millions la. xam naa boo xaajee ci digg bi. benn xaaj bi buñ la gëmee benn xaaj bi gëmuñu la. ñi la tem ñu bàkkaaru kii am na fit de. Mhm. kii demee na nii de te damay ragal tamit nit ki góorgóorlu ba joxe ay douze millions treize mhm. ay plainte di ci mujj naan gisuma lii la ma waxoon sacrifié woon ak mhm. yooyu léegi kaamil jege na day jar waat wala ni limal nga ko ubbil kaamil ba xam ne kaamil la jaamaa carte fiis di jaabul kon da koy waat dégg ngeen yokk ngeen na yor na ñaanu huit milliards ci ñetti fan gën gaa gudd 41 jours man nag bu dee 41 jours sax mën naa ko dollil ba 6 mois bu ko neexee. mais sarax yi diis na àgg na ba ay. waaw million millions ba 11 côté yooyu. pour global bi. boobu boo ko defee nag amul ma jëndaat cuuraay bi amul ma defaat lii amul or bi dañ cee jiw lépp dañ la jox xaalis bi yow yaay def li ci des. Mhm. léegi waatal nag dafa nar a waat. seex waaw te nee na nag bàmmeel nit doo nga fay des moom kese. du ànd ak jabaram doo ànd ak doom man yàlla moom moo gënal. yow ak hmm. ñi ñi ñi seetaan. waaw parce que naa ne. Hmm. lu mu neex neex du ma ànd ak yow ci bàmmeel. Hmm. parce que salaatul fatiha billahi wallahi tallahi wala kitaabi. képp ku ñëw. lu war a lu ñu a liggéey nga compter ba mu mot chaque trois jours ba quarante et un jours nga am huit milliards. déet la fii nag laalu kaamil bi da nga yëkkati kaamil bi téye wax. comprendre nga kaamil bi da bàyyi ma ëcc waaw yëkkati wax tëj ko waaw nga ne man Jama Kanté man maa wax ni waaw mu leer assurance bi gis nga seex kaamil la waaw kaamil ba da ngay teg lu bon lu bopp lu bon sa bopp nag maanaam li bu dee li may wax amul ma ne waaw billaahi wallahi tallaahi waaw képp ku ñëw ci ñaanu milliard gi ñaanu milliard gii li mu la wax salax yi yëpp nga motte ko nga motte ko boo ko amul boo ko amul billaahi kaamil bi ni lépp lu mu dugg na yàqu lépp loo dugg mu yàqu mu yàqu yàlla yàlla bu boo jariñoo xaalis bi yàlla boo jariñoo dara. ku ci bëgg nag li ma la wax boo ko deful. yàlla na la lu ma doon yàlla ne la nga jeexal takk-takk ba nga yalwaane. ba nga yalwaane jeex na kon. comprendre non seex bi moom warul àgg fii man seex lu mu moo am. Mhm. jeex na tegal kaamil comme. yaa ngi donc mi ngi noonu. kon mbokk yi di gis ngeen léegi nag moom moo wax moom la man nag li ma bëgg a xam mooy ku jot milliard. ah boo demee def lu baax naa ci kontaan. mais léegi milliards yi nit ki bu xasee def ba pare day jékki-jékki seen buntu kër garab ngay taw xaalis wala day jékki-jékki ubbi mu fees wala day liggéey liggéey bay dox wala waa Al Nassr a koy jékki-jékki signal ko contrat ne ko fan la xaalis bi nan lay jaare ci liggéeyam lay jaare dox wala waaw bu ñu képp ku ñëw loolu mm-hmm. boo agsi waaw ñu dugg ci loolu alal bi ni koy jotee ak lu muy ñëwee am na ñoo xam ne bitim réew la nekk mënuñu ñëw moom képp foo nekk ci àdduna mm-hmm. foo nekk ci àdduna waaw foo nekk ci àdduna mm-hmm. da lay fekk mais alalu jinne la wala. nga. Mhm. am na benn benn preuve. benn preuve am naa fi ci image ku nekk Amérique. ku nekk Amérique ma liggéeyee ko. waaw. war na mun naa la mun naa la woon. Mhm. yow nga dal ko nga nga gis ko moom. Mhm. mu liggéeyee ko musuñu gisante ba léegi. ba gisante ba léegi. musuñu yor na ay yor na ay xaalis bi dafa ñëw fekk si ko. mais li ma jaaxal fi nga dëkk ci Grand Yoff Grand Yoff nii. mbedd yi dese woon naa rafet quoi carrément. léegi kon munoo yëkkati kër gi étage wala lu tax. parce que du ma man du toog fii. Ah, ok man du ma toog fii. Hmm. man fii du toog fii. Hmm. bon euh, sama moo fi nekk yoo xam nga man damay jaabante. Hmm. aussi du ma jóg xanaa déplacement. même ku bëgg liggéey alal bi. boobu naa ah bëgg ñu déplacé wu nga ñëw. voilà foofu naa ci ñëw man damaa bëgg bi milliards yi kii lii def gaa yaa yokk télé bu baax di ko dégg. parce que fi mu nii nag instant bi hmm. dëkk bi ni mu dëgëree nga a def yi nit yow lii état moo tax suñu état yi liggéeyun mel nii li wax lii. Hmm. kii li nga war a def mooy leen indil ko benn deux mille personnes fayal leen seen i onze millions sawaay buñ paree ku ne yori milliard ku ne dem ubbi société léegi boobaa ndaw ndaw ñi dinañ liggéey Ah, hmm? yow dèjà bu ndaw ñi liggéeyee ba pare l'islam bi dox ah imagine mille personnes état bi fayal leen hmm. mille personnes ku ne douze millions gën ngaa parce que bu dee onze rek neel douze wala treize hmm. ci gàttal loolu buñ la ko joxe du mat cent millions wala du mat trois cent millions léegi trois cent ah waaw léegi loolu nga ñëw dajale ko nga jël état bi jox la quelques personnes ñooñu nga def leen milliardaire muy indiwaat quelques personnes ngay def leen milliardaire liggéey kon ñun léegi ñu léegi ñu romb ñoom Dubaay sax waaw mais xam nga xool ñoo bokkul hmm. Cheikh boo amee yow yoro yow yoroo dara hmm. mais sa xool dafa rafet loo am rek bokk ak say mbokk la muy borom barke naan mu yoroo dara ne di nga yor dara waxal di nga yor dara <laughs> waxal di nga yor dara yoroo dara dafa wóorul de waxal ko nee ne milliards yi di nga am waxal gaaw la waaw da ngay am milliard mais xam nga rek law tabarkel waaw waxtaan lañ nekk waaw dama lay expliquer man moom boo amee damay joxe moom voilà xam nga mais tey yow am ñoo xamante ne pourtant am nañ hmm. am nañu de. waaw ah. mais pour ñu dimbale problème la. dafa am ñu soxor. Mhm. Mhm. Mhm. xam nga. parce que yàlla ah. may na la. lu sa doole. yàlla soxorul. ndeysaan nit moo soxla. xam nga parce que ñu wax yàlla yor na lépp yàlla yorul lépp. yàlla yorul lépp. xam nga. Ah, waaw donc mi ngi noonu. ah jërëjëf na doy na waar daal dégg ngeen li Diama Kanté wax borom jinne yi ngeen bàyyi ko xel bu baax a baax a baax a baax a baax a baax. nee na daal en tout cas ci huit milliards yi euh, lan lay xool huit milliards yi mbay maa sama doon joxe code moom dama dama doon génnaat xam naa moom day réaliser quoi petit soo seex naa jawa léegi huit milliards yi léegi jigéen mën na ci bokk. <laughs> même xale bu ndaw boo yore même xale bu ndaw boo yore rek. Uh-huh. waaw ku yoroon yu bari bëgg investir ay doomam yëpp kenn ku ne mu. ku yor 2 millions doo doo ko am. ku yor 2 millions doo am 8 millions doo millions doo am. il faut 10 11 jëm kaw. waaw sarax bi léegi def da koy duggal xalwa wala wala man xaalis bi ni mu ñëwee jaaxal na ma de mooy dox. waaw wala day jékki-jékki di ubbi xaalis bi ñëw xaalis bi comme 3 jours lu muy commencé gis ay 100 millions 200 wala. jërëjëf kontaan na xam nga lan moom moo neex si yow. Mhm. da ngay laajte laajte pour parce que. askan bi la askan bi nit ñi comprendre. comprendre. Mhm. seex. Mhm. bu ñu liggéey ba pare ñu génne salarié. waaw. bu ñu pare. waaw. li nga war a jot ci nga jot ci. yi fu yaa ngi Sénégal. Mhm. wala yaa ngi bitim réew mi. ñoo xamante war naa la ko yónnee. la léegi boo koy excès. alal lu war a ñëw première chose. même booy taxaw nit dina ñëw nit dina ñëw yor sac bu ngand sac bu ngand ah. mu nuyu la mu nuyu la mu wax la est-ce que mën naa bàyyi kii maa fii laay ñëw ngi ñëw fii balaa ma est-ce que mën nga ma garder ma ne ko waa non teg eh. bu demee eh. du ñëwaat léegi nga yow nga toog nga toog nga toog su fekkee ku xamul eh. mun la jaaxal mais boo demee ba nga xam hmm. kon boo yàggee-yàggee nga jël saak bi nga dem sa kër nga dem sa kër ubbi ko boo ko ubbee mm-hmm. doo gis ku dul alal lu milliards yëpp a mat chaque jour bu doon ko bëggee nag mu jékki-jékki di wàññi wàññi eh, milliards yi manqué na quatre cent mille nooy def non ah. ma ne ko luy njëkki ñëw mm. waxuma jour ba huit milliards non non ah, lu luy ñëwaat waaw dama lay expliquer luy ñëwaat mm. xam nga yi des nga bagage yi nga di fa bi chaque jour daa nga koy ubbi nga génne chaque jour daa nga koy ubbi nga génne chaque jour daa nga koy ubbi nga génne ba 41 jours. 8 hmm. milliards bi dina mot du manqué du ëpp. kii mais xaalis boobu après bu ñu nit ki investir liggéey dina am du yàqu. balaa ngay investir da ngay bàyyi si xel jàkka yi waaw jàkka yi léegi leen comme nit ki am 8 milliards bañ per perdre temps. Mhm. jël 8 milliards bi rek. jël benn bi ber ko à côté ne lii mooy jàkka yeeg daara yeeg sarax yeeg nangam. commencé dem investir ay projet ba. loolu mën na nekk jeex na. pour bañ a perdre temps jeex na. léegi nag euh, ku ci joxe xaalisam gisu ko euh, euh, foo bëgg ngeen àgg fa bu la plainte lépp pare. maanaam gisuma ko man plainte. Hmm. plainte plainte. waaw non képp ku ma plainte sa bopp. Ah, ah. xeet na parti bi moom nar na métti ku ma plainte ko bu ko mm. ko nit ki amul tamit bu la plainte boppam la plainte. waaw xam nga wax. Mm-hmm. boo waxe wax bul xool nit ki xool xalaat eh, eh, wax ji. non man ba léegi moom même ñi nga waatee am na ñu ko dul gëm li ma bëgg a xam sa mbokk yi ñaata nga ko defal defal ko ci ñaata. non man lu ma def ëpp na. sa mbokk yi laa ñaata nga ci defal ban am milliard. man sama mbokk yi. waaw loolu moo tax ma ne bari naa. loolu bari naa. gis na seex. waaw mais li terewul yaa ngi soxla xaalis de. ah mais man man tey jii su fekkee xaalis kese kese la. Mhm. su fekkee xaalis kese la. waaw man soxla ma kenn. soxla ma ma kenn parce que mun naa toog lépp lu mu soxla ci àdduna si xaalis. dina ma fekk. mais yàlla daf ma bindi jàppale doomu aadama yi. Ah, bul fàtte ne dinga ma cinquante millions de. xam nga loolu loolu comme comme ñoo ngi nekk man ak yow yàgg nañ fa lii de ay diis ay quelques. xam nga. donc mi ngi noonu. léegi kon non. bul jàll. même même temps bi xëy na temps bi mi ngi jeex. waaw parce que dama yàgg fii quoi. voilà nga ne ko ku amul. lu ne plainte non ma ne ko ku la plainte yaa sa bopp. waaw. boo gisee li nga amul xëy na ci sa bopp la jógee. parce que man bala balaa muy dugg. comme lu mu la waxee sànq. lépp day leer na damay seet. parce que kii war na am alal. parce que dafa am ñu xamante yàlla dafa leen dafa leen bindi. Mm. mun nañu am lu ñuy lekk. Mm. mais yàlla binduñu ñoom mun nañu am alal. am ñu xamante ne yàlla binduñu mun nañu am. jeex na kon bu ma seetlu su fekkee yow mun nga am. Mm-hmm. mu ngi noonu kon am ñu xamante ne non man bu même bu xoolee yow munoo am. sëñ bi dimbale ma ngir yàlla dama sonno sama mbokk yi sama sama parents yi man la yaakaar ma rek ngir yàlla jàppale ma rek donc moom la yow léegi yow nga jël yow boo wax naa ma ko yàlla déglu yow nga am jàpp xaaral ma joxe numéro bi parce milliard duñ ko wax te numéro bi ngir di leen doonaat dafa 77 bindal maire foofu bu dee bindal boppam paa bi mu noppi mu dugg ci biir Tektal mooy daw ci biir Tektal TV Jama Kanté borom jinni moo wax ne ku bëgg ñaanu huit milliards yor na ko ci ñetti fan lay tàmbalee jëm 41 jours nga téye say milliards moom moo ko wax jël na kaamil waat ko moom nag kon nag euh, loolu mu wax moom moom la ku ci am ci milliards yi nga nga tàlli rek ak lam la wax nga def ko bu baax a baax condition yam teg li ñu ñi mu wax nag am nañu ko gëm am nañu ko dul gëm ginnaaw bi mu waatee ba pare kon ku ci am lu leer rek nga wax ñu tabul war daal dafa 77 664 08 09

bu nekkee Mali nag wala mu génn bitim réew whatsapp bi nga koy jote euh, nga dis ko soxla lu mu ci mu def ko leneen ñu bàyyi yàlla mu xam tëlewul dara te mën na lépp mi ngi ci Grand Yoff nga ne boo ñëwee ba Grand Yoff boo rombee police bi romb marché bi ñëw bu fi ni jaay ginaar waaw boo ñëwee foofu rek woote ñu jël seen waaw Diama euh, mhm. kon daal euh, huit milliards daal leeral nga li ci bëgg a lépp leer na leer na incha allah te ma am benn problème du ma ci am mhm. déception kenn du ci kalaame ñëpp dinañ ci bëgg non tamit da ngaa wax ne yow mën ngaa ñaanal nit duggal ko xalwa bu dee ponkal la dëgg attan ko nga dem ba fa nekk defal ko balaa muy génn résultat bi wàcc waaw hmm. lépp loo soxla hmm. liggéey waaw wala place wala loo mun loo loo mënta bëgg hmm. wala da ngaa yor société ku si commencé commencé doon donc da may déplacé ma dem nga utal fu muy dëkk ma defal la génn yow yaa mooy fëgg jox ma résultat kër Souleymane te cent pour liggéey bu ne loo soxla liggéey liggéey loo soxla ah loo soxla mais dégg naa nag dugg xalwa nii am na sëriñ soo xam dañuy dugg xalwa hmm. caméra surveillance yi di leen jël mais ñu nekk fa di message ak di kii yooyu buñ paree rek ñu xeb leen nag non boo xam nga boobu boobu doon sëriñ bu ragal yàlla ko def non xam nga seex bu ñu wax loolu Euh, day comme yaa ngi defar sa bopp yàq. Mm-hmm. mais euh, mi ngi yàqal boppam daal. comprendre comprendre donc mais. non non dama lay wax maanaam fu tappale ak nga xamaale ko mais adduna noonu la. adduna mm-hmm. noonu la. Mm-hmm. xam nga yow même jëlee exemple. am ngay yére am na yu am na yu baax. waaw yu baax yi ngay jël nga sol. waaw yu bon yi moom ma sàgg fële <laughs> xam nga donc adduna. adduna noonu la. Mm. man képp ko xamante ne liggéey la kon daal xalwatu daal koo ci dugal ak soxla bi lu mu rëy rëy dina faju soxla bi lu muy rëy rëy rëy mm-hmm. xam nga num loo xamante ni c'est-à-dire loo loo comme muy footballeur rek yëpp dem ci club bu mag yee yëpp man nga ko ma ne waaw même football nga xamante ne yaa ngi yaa ngi yaa ngi football nga bëgg benn club woo la waaw comme Real dans trois jours dañ lay woo ba ma déplacé ma ñëw trop billaay wallaay ba ma duggee xalwa lu muy rey ak ak bu ma duggee lu muy génn yëpp taxaw trois jours ñu woo la ñu message la su fekkee entraîneur bi dañ ko woote non dañ ko woo. Mhm. léegi bu dee joueur boo xam ne que moom aay gi des na mais farlu na ci li muy def mën ngaa fexe mu dugg titulaire tamit. même ku xamoon mënoo dara boo ñëwee. <laughs> Eh, yàlla mënul dara billahi wallahi léegi kay maa ngi. aduna ah. du du du liggéey bi. Eh. ñaan bi la. Mhm. barke rasulullah fekk ñaan la. ñaan la. du doole ñaan la. am na nga xamante ne mënul dara. Mm. mais lu nekk ci yaram bi loolu moo tax ñëpp bëgg. Mm. xam nga. jeex na kon daal ko bëgg a neex entraîneur bi yëpp daal moom mën nga ci dara. yow mais yow tubaab ba mu ne ngodd lu mu ko wax mu ne waaw jigéen ñi bëgg loolu mën nga ci dara jigéen ñi am euh, benn faru tubaab daal te bëgg ko téye. ay nga ci waaw loolu moom bu soobee yàlla. Hmm. incha allahu rabbi xam tubaabu liggéey ñëpp ñoo koy liggéey. Hmm. waaw mais ñuy jaar. fooy jaar. waaw loolu sama diggante ak yàlla la. Hmm. waaw. nga kii ko bu baax a baax. incha allah li ma jaaxle yow dafa da ngaa mel yor xam-xam bu ñuul. yor bu leer. mais boo dee maa ngi gis ay alxuraan maa gis yu ñàng yi. mais loolu loolu mooy suñu cosaan ñun xam-xam bu ñuul mooy suñ cosaan. mooy suñu cosaan lu xamante ne lii mënul nekk. Hmm. ma ne ko lii dina dina nekk léegi léegi. garanti non. même ko ma noo kii liggéey du ko jàpp. nga xam noo diw liggéey du ko jàpp diw dafa sangu diw dafa sangu ñaanal yàlla bul jama kante topp la. non dama lay dama lay expliquer bon xam nga c'est-à-dire. ah mais ku liggéey jàpp moom mën nga ko dindi. voilà comme waxtaan la quoi. waaw dafa am yoo xamante ne. dañuy wax noonu diw. liggéey du ko jàpp parce que da ko eh, non sama jëkkër yii ko dafay ko liggéey du ko jàpp de. Eh. non yii kii sama kii moom nga. yii mm. sama patron bi lu muy sangu eh, lu kii. donc ma ne ko non xam nga képp ku nekk àdduna da ngay ut rek mais bul ñaan yàlla nit ci topp la pour yàq la pour yàq la xam naa nga xëy na kii moo leen jot kii du jot mais keneen du la jot jeex na xam nga léegi ji gis nga léegi bu may dugg bu may si bagage yi jinne yi lay sol waw moom lay sol bii yëpp yëpp ak béjjën su ndaw si. waaw yëpp jëne ñi ngi fi instant bi wala. ah Cheikh Ban foo mu nekk ci àdduna foo nekk fu mu nekk ci àdduna. Mhm. ah fii ñu nekk laa ñu ngi fi jëne. maanaam ñu waxuma bureau bi ma ne kër gi. ñu ngi mais sunu enregistrement émission bi ñu ngi koy seetaan. Ah, yow yow foo nekk foo nekk jëne ñu ngi lay seetaan Cheikh euh, Cheikh. ah kon yàgg. ah ma nag yow ñaar at. <laughs> ñoom dañ maa faa dama leen soof. ah mais parce que sa jikko moo baax. sa hmm. jikko moo baax aussi. da nga nekk ku baax. ma nuyu leen dinañ ko dégg. ah ma nuyu leen. na leen jinne yi Jama Kante yi. leen waaw maa ngi di fay nu mu tudd jàppal tur Tamba Jaaba. Jorobo. lima eh, lima. voilà Jorobo. waaw. Boré. Hmm. Jean. Hmm. waaw. ok ah, kon daa mel ne jë junne yi nga yor du junne jullit de wala. ah yëpp jullit la kay. yëpp la ay sant yi ñu tudd nii. amee. li ma la ma dégg li la kan la ma leen tuuti ma Tamba Tamba kooku mooy buur. mooy buur bi ak kan. loolu moo tax ma ne ko sànq mhm. ma ne ko nga ne ko ku eh, plainte ma ne ko ku ma plainte yaa plainte sa bopp <laughs> parce que jinni parce que jinni yor. Mhm. buur la. agré nit des waaw. Tamba waaw Tamba Boore. Boore. Souleymane. Souleymane Jean. Jean Kaba Dangele. Kaba Dangele Jaaba. Jaaba Siri Lagare. Siri Lagare. Kersalay bu doon keneen du ci jaaraat. ah bu doon keneen. Ah. may defee émission. non mais. la bu doon keneen jaxase rek di ñu wax waxaat yeneen tur. non non non. Ah? non man man lu ma yor xam naa ko. ah Kersa lii lan la lii comme yi petit saw takk waaw yii. waaw waaw ah, la. waaw Ah, mooy seen gi daal ko bëgg a takk. waaw kii mooy gàllaaj. ah ku bëgg di romb ci aéroport yi kenn du la gis seen mën na nekk. non bii non loolu loolu loolu. liggéey la. waaw ah mais mën nga ko. ah mais c'est mais. Mhm. xam nga xam nga. yow loo tëlee loo mënul. non ci wàllum ñaan ak faj loo ci mënul. man ñaan. Mm. lu mu mënul. waaw parce que nit bu wax mën nga def lépp. Hmm. mais man lu ma mënul. waaw bariwul de. Hmm. man mënuma nit dee. waaw ma yëkkati ko loolu moom yàlla jox ma kattan boobu. ah loolu rek nga tëli. yàlla bu ma joxoon aussi. Hmm. Ah, def de. mais loolu loolu mën nga lépp. non jeex na Diama Kanté. ku bëgg jigéen bu bëgg jëkkër wax naa la ko tubaab bi. ku amul tubaabam di nga ko lijjanti daal. léegi maa ngi bëgg ñëw tamit ci kun liggéey mu bëgg a toj liggéey bi mën nga ko. parce que damaa gis butéel bi ñu bind ci toj liggéey lu gaaw si toj liggéey képp ku xamante ne mu ci kaw ni ñu gis waaw xam képp xamante ne waaw na nga yëngal rek def ko mhm. xamante ne waaw dañ lay liggéey lii rek laa jox pour ah, liggéey bi laa génne sa hmm. bot sa bët dama koy génne di nga ko la ko ko def ko def dara bàyyi ko ak yàlla hmm. bu dee la jege la ci mbokk la non bàyyi ko ak yàlla yàlla moomul lépp xam nga voilà ku xamante ne lay liggéey sa liggéey yàqu sa mm-hmm. projet yàqu xam nga mm-hmm. mais dama koy tojji lépp lu ñu suul liggéey fépp lu ñu suul tul nag da nga ko defar tul tul waaw waaw ah tul du gën daal ah tul moom dama ko def mm-hmm. waaw tulu jaasi paaka fetal tout da nga yor fetal yoruma fetal da ngaa bëgg essayer beneen yoon nga indi fetal Mm-hmm. mooy toog ma jox la. fetal sori na paaka jege fu. ah man du gaañ sax man mënu ma loolu moo tax moo tax di gën a si ah kon daal fi léegi yow ku la doo dagg doo dagg dee kon. non man xam nga bagage yi ma nekk bagage yi ma nekk fii. Mm-hmm. bagage bu ma nekk fii. waaw. Ah, kon daal ku bëgg tul mi ngi doon temps bi laa njëkkantel dugg ci bari rek léegi. Euh, léegi wax nañ wàllum sarax nag noo def ak moom ay nga ci. sarax sarax koo xam day saraxee rek lii bu ko saraxee rek li mu bëgg sotti. waaw boo ko seetalee rek wax ko. waaw loolu c'est ça. Hmm. waaw. ni mën nga fal njiitu réew fal député fal euh, fal maire ak yooyu ay nga ci xeetu fal ak folli. non Cheikh euh, loolu moom képp ko xamante ne bëgg nga ci comme li nga expliqué. Hmm. man bu ma la waxee yow yaay gagné. Mm-hmm. même soo fekkee adduna bi day bugg la bugg la mm-hmm. yow da nga ciy coog par la force mm-hmm. su fekkee vote la sandi carte parce que jinne yi yëpp nekk ci adduna ñoom yëpp day ñëw vote la waaw ah man daal mas nañ def émission daal mu mu ray am ba aw bëy bi mu rey aw bëy wi ñu teg nii toog di xaar le temps émission bi jeex ñu jékki-jékki gis deret ja deret ja ñu ne anam mun a jigéen yi naan ko mu doon daal jama kanti daal mooy loolu quoi mooy loolu ah léegi ku nekk bitim réew bëgg kayit nag mën nga ci dara lool quinze jours la quinze jours su fekkee yow yaa koy euh, quinze jours bu dee déposé gul wala bu bu déposé soo fekkee yow yow yaa ba déposé sa bopp mm-hmm. wala tànga ko jox si avocat mm-hmm. nga wax ma. moom xam na kii di wax xam na ko ok dama yaakaaroon koy làmbatu di wax la àggale. comprendre nga. Hmm. su fekkee da jox avocat. wala hmm. yow sa jëmm bopp yaa ko lijjante. Hmm. yaa koy déposé chaque fois nga dem xool yi. xam nga la ñu woo la. su fekkee avocat moo ko yor nga jox ma turu bi. donc la. 15 jours mu lijjati ko waaw. jeex na ku nekk fii biir Sénégal bëgg tukki nag dem bitim réew loo ko mën a. ku képp ku bugg a tukki sa passeport ngay indi boo indi sa passeport bu ànd ak man ñett fan. mu la li nga war a fay. Mm-hmm. nga fay boo ko mënee moo mu garanti la. Mm-hmm. boo ko mënoon tamit nga bàyyi. a bàyyi xam nga donc ñu xamante ne ku lu baax da ngay génne boo yoru képp ku xamante ne yoroo. bu mm-hmm. woo sax. <laughs> Ah, yor. yor non nga mën a liggéey. Ah, ku yoru daal bokk ci waaw. mën da nga woo rek donc yoruma dimbale man naka lay dimbale yow lu mu la a dimbale. Mm-hmm. da ngaa yoro cent franc. Mm-hmm. nga na jàppale ma ngir yàlla. Mm. ma ne ko indil cent ma jàppale la. Mm. mais yoroo dara. yoroo dara. dara rek dara lay ah, yoru dara moom ah day na de. ma ñu la metti na. Ah, jama ku bëgg bayra bu saf nag. soit muy ñu koy tudd ci jàmm ak salaam buy jaay oto mu jar bu jaay conteneur mu jar buy dugg ci port bi lu muy bu yore parking mu jar lu mu bëgg mu jar Bayre ñu koy coow ci jàpp waaw képp ku bëgg Bayre. Mhm. nga buggu Bayre. boo ñëwee. wala nga woo ma téléphone. Mhm. incha allahu rabbi dama lay seetal bopp ba pare. Mhm. bu ma seetee ba pare. incha allahu rabbi. li nga bëgg danga koy am. sa liggéey dina dox. mais may Bayre liggéey bi dox. ñu ay marché yu mag a mag mhm. waaw yow bàyyi la seet yu yomb yooyu yaa ngi yaakaar muy tas yaa ngi jàpp yoon yaa ngi lijjanti mbir. Mhm. bu dee jigéen la nga ne ko góor ñee la gën a bëgg bu dee góor nga ne ko jigéen ñee la gën a bëgg munoo yor lu daje naa nga ba du wax sedd yu yomb yooyu nga xam man sax mën naa ko. wala non ça dépend yow yow. Mhm. kenn ñëpp ñëpp mën na seet. ñëpp mën na seet. mais nit kii il nga xam il nga xam li xamante ne. ak avenir am. avenir foo nga xam lan moo ko téye. lan moo ko téye foo nga xam lan moo ko jàpp. lan moo ko jàpp lan moo ko tardé. loolu moo tax man képp ku nekk bitim réew mi trente mille. la pour mu seetal la. pour mu seetal la. ku nekk Sénégal. Mhm. dix mille franc la. dix mille franc la. xam nga dëgg. waaw man bokkuma Serigne Dakar de. Mhm. Serigne Bakel àll non dex mhm. na donc léegi dañ lu yàgg nga dem nekk ci àll bi Mali ñëw génne ay produits Euh, produit euh, Ibrahima jox ma bu bu ngóora bi ma xool avant boobu léegi bi ban la bii mooy cuuraayu. waaw seetaane. Hmm. Hmm. bii wax ci ñu dégg. non bii. waaw c'est-à-dire man. faj rek laay. bii cuuraay bi la ah faj rek. ñaan ñaan laay yëngu. ci ñaan nga yëngu. lii man maa ko jël garab yi rek sotti si yii. nga hmm. xamante ne parfois. même bu ma nekkul fii. liggéey bi donc voilà donc liggéey bi na ko sama yi donc hmm. ñoom. Hmm. ñu a xam lii mooy lii li mooy lii. mooy lii lii mooy lii ok. ndax may dëgg. efficace la daal yu jógee Mali. voilà c'est ça parce que gis naa nga yor ay saako ay bagages yu dul jeex. voilà ma indi ko. yëkkati hmm. ko Mali indi. bii mooy cuuraay seetaane bi xamante ne même ay dëmm lépp daal. dun fa jaar. xam nga waaw non. bii nag damaa gis démb bi may gëstu ci kii bi nga indi ko nga ne eh, bagage su ngóor la boo xam amul du doon pousse mu tàkk. waaw xuus moo da koo takk daal bu baax. non bii moom même ku xamante ne yaa ngi quatre-vingt-dix ans dootu liggéey boo ko jëlee lii. Mhm. da ngay ah, comme quatre-vingt-dix ans sax day continuer di bëgg. non ma ne. amul effet lii moom naturel la. naturel la la. Ah. question nga naan tey jeex na. Mhm. lii da koy naan. di la mhm. faj. mu di la faj di la faj. di la faj am ñu xamante ne seen kii bi dafa dee dafa dafa kii. ndig mais lépp lay defar. lépp lay defar lépp lay defar. ah kon kii bu ko nit ki naanee benn yoon bu ko neexee mu sànni ko dootu ko soxlaat. non du benn yoon. xanaa déggoo ma ne ko dalay faj. dalay faj ok. xam nga mais du kel galoo xamante ne yaa ngi de ngóor ay mille francs wala ay mille cent wala ay 5000 wala ay 10000 ngóor déedéet. Hmm. lii pour mu jox la. Hmm. da indi fas. wala njëgu fas. njëgu fas jëngeen ko fas wala njegu fas kon lii lu seer la. voilà. ok léegi amul effet secondaire. non kii moom. saa yu nu ko nit ki bi nu ko nit ki utilisé fu koy. non lii yow yaa xam na koy lekkee. na koy lekk rek. Mm-hmm. def ci ay ay. sax nga lekk ci kanam nit ñi. Ah? daaj di lekk man ko. ah ma bul ma indi problème de. Ah, Cheikh de daaj di lekk ñamal. léegi xaaral ma jël tuuti ma jox la tuuti. waaw ñamal pare waaw. ah ñamal. am jox petit mu ñam. ah non non pare. <laughs> waaw bëgg lii garanti nit ki li muy jox nit ñi mu ñu gis ne mi ngi koy jëlal boppam. ñu gis ëcc. waaw yaa def ëcc defalal ñee. Ibrahima eh, ëpp na la. jox ko de de de de bismillah hmm. jox ko Bamas. xam ne ma yaa ngi seetaan muy da jox doo di ñawal. waaye ni dañuy ànd dundoo la ñu ànd dee am jox leen ñam defal leen ñoom ñëpp. doli ah jamaaka lii nag moom mooy xam nga dafa am sëriñ soo xam dégg naa dañuy jël bagage tubaab rax ko jël dañuy kii joxal baay jël bagage tubaab rax ko lii jël bagage tubaab rax ko kon daal bii ci ngóora ku ko jël dina ci gis boppam daal incha allah day faj lu day faj ku xamante ne Mm. du fonctionner carrément. Mm. Mm. boo xamante ne day gaaw a pare. day gaaw a indi cinquante mille moo jox la. du eh, du question ngeen indi cent mille franc ma jox la. donc lii. njëgu fas dinañu. njëgu da indi fas. boo amul fas ngeen indi njëgu fas. ngeen indi njëgu fas. parce que day ànd ak ak yeneen. ci sangu xam nga. billahi voilà donc mi ngi noonu. mi ngi noonu jërëjëf euh, doomu jinne léegi ñu ñëw ci bii bii moom luy njëriñam. bii mooy pour sangu mu li mooy pour voilà li mooy pour sangu xam pour sangu la waaw pour yi dañ ak yooyu yëpp mm-hmm. waaw macha allah lu muy ah, njëriñ bon lu muy njëriñ lépp bàyyi ree lépp daal mm-hmm. day faj day faj comprendre nga mm-hmm. ku ndaw donc mii mooy xamante ne yéex yéex di métti yéex bi métti voilà wala genou wala ndigg ndigg waaw baax na même joueurs yi xamante ne bu ñu ci ci ci joué rek seen journée bi day am problème. Mm-hmm. donc kon li baax na ci ñoom ay ñoom Sadio Mané ak El Hadj Malick Touré yéen gars yi ah, joueur yi kii Mouhamed Ndiaye agent joueur bi joueur ah. kon bii dañ koy diw rek. waaw incha allah benn am na jeune de bu ko testé day jeex. waaw. Mm-hmm. waaw allah. incha allah kii moom. léegi jigéen ñi ñoo ko moom. jigéen ku xamante boo boo bëggee sa jëkkër toog. sa bëgg jëkk sa sa jëkk a toog. waaw waaw mais ni nga koy utiliser ba ma woowee rek ma wax la ko. ma wax ko waaw. ok waa jëkk day am benn place quoi. am na xamante ne ñoom dañuy taxawal rek. dañuy taxawal rek seen jëkk seen jabar dem rek. di wàcce liggéey rek yow nga jug sa oto maa ngi ñëw rajo maa ngi ñëw fii xam hmm. waaw mais bii moom ku am rek da nga yem. Ah, na. waaw bii la. lii mooy ku amul doom. ku amul doom ku bëgg am doom. voilà ku bëgg am doom. lii ku góor ki wala ku jigéen ki. yëpp daal lay xool. ñoom ñaar a koy bokk. waaw ñëpp daal. ah den war yii moom ay kii la ko am. voilà ay baga voilà baga garabu ñoo fi nekk nii. ñoo fi nekk nii amul lépp mënul xaj fi. Mm-hmm. voilà yëpp mënul xaj bi donc mi ngi noonu. mi ngi noonu kontaan na. alhamdulilah léegi lan nga gis ne bëggoon nga ñu ci waxtu benn dab. non bon xam ah. nga man moom. parce que euh, bind nañ ngóora ku bëgg produit euh, kaaraange ku bëgg a mucc euh, gettalu quoi ba kenn du man ci moom dara yëpp man ak ku xëccoo place ak yëpp daal. Mm-hmm. Mm-hmm. non man moom comme comme euh, lu ñu maa ngi fii. Mm-hmm. ñaan rek la. ñaan rek la dimbale doomu aadama yi. dimbale doomu aadama yi. leen dimbale. di ànd ak ñoom ci yoon yàlla. macha allah donc lépp lu xamante ni yàlla bokk ci. man du mu ci dugg. Bagak BFM yëpp concours yooyu itam mën a jàll. lépp la man boo boo déggee ñaan moom lépp la. lépp la. boo dëggee ñaan moom lépp la. nit ki balaa ma lay balaa ma lay balaa ñuy liggéey. il faut ñu seetal la ba pare. jax na donc lu mooy wax man tooguma fii. aussi nekkuma fii. mais whatsapp bi daal dina dox. voilà whatsapp bi dina dox. léegi kan moo la fi nekk da koy wane wala. waaw sama waaw sama rakk moo fi nekk bu ma nekkul sama rakk moo fi nekk. anam mu ñëw gis ko vite fait waaw nañu toog. nañu toog kii la. waaw kii kaay. kaay ñu gis ko kon bu fi nekkul waaw. ñëwal ni. c'est yaa Ibrahima. Aruna moom mooy Aruna. kii mooy Ibrahima Ibrahima na nga def. ça bu baax. kon ñu xàmmee ko bu baax a baax kii moo fi nekk. waaw kii moo fi nekk. Mm-hmm. boo ñëwee fekk ko fii. Mm-hmm. fekk nga Diama Kanté. fekk waaw. lu mu la wax loolu la. Mm-hmm. bu nekkul fii man maa nekk fii ko kon ñu xàmmee ko baax même bu dee jot nañ keneen ci téléphone mu yow tam jàmbaar la. waaw incha allahu rabi incha allahu bu dooloon kenn te da nga jëriñ ñëpp. ñëpp ñëpp. waaw lépp lu may lépp lu may doxe rek moom tamit noonu lay doxee. noonu lay doxee donc. kon jërëjëf euh, kon gis nañ ko baax. waaw jërëjëf. jërëjëf kon Diama euh, Kanté waxtu benn dab koy sant ak gërëm looy tàggoo bu dul tàggatoo. waaw alhamdulilah maa ngi sant ñëpp di la sant yéen tamit waa hmm. Tektal TV. Hmm. donc nga wax gars yi abonné Tektal TV. waaw donc gars yi abonné Tektal TV. Hmm. di leen sant di leen gërëm. parce que yéen tamit euh, yàlla da leen fay parce que yéen ñee dox di uti yoo xamante ne ñaan ñi ñi njëriñoo ñi ñi noppaloo faj xam nga. donc euh, maa ngi lay ñaanal bu baax a baax yàlla def ci barke seen liggéey bi. amiin amiin donc man tamit euh, képp lu mu la képp ku bëgg lu leer lekk. woo téléphone. donc euh, képp xamante ne bëgg nga ma déplacer nga déplacer ma foo munti nekk mu ñëw fekk si la mm-hmm. mu liggéey sa liggéey mu ñu man ñëpp laa fi nekkal ci àdduna nit kese macha allah gërëm soxna euh, seeg ñëpp vraiment maa ngi sant ñëpp Mm-hmm. voilà donc maa ngi ñaan bébé aussi. mu mm-hmm. am gudd fan. Mohamed Mohamed amiin amiin donc caméraman yi aussi mm-hmm. maa ngi leen sant gërëm yàlla yàggal seen loxo. yàlla jàppale leen. lépp la ngeen bëgg liggéey bi. yàlla may leen ko. amiin amiin barka salaatul fatiha. macha allah jërëjëf jërëjëf kon gërëm nañ Ousseynou Ly Allemagne euh, suñ lépp. Euh, mami d'enfant France suñ lépp Sayer Fall Espagne suñ lépp Mohamed Ndiaye agent joueur Euh, Palme de Mallorca di suñ lépp baax ak Marga ak Patricia ak Soxna Jaara gërëm nañ ko bu baax a baax gërëm nañ tamit euh, ma Nogay Diop Allemagne euh, ak ba Jabaate Allemagne jëm nañ tamit Malick Jiite Grèce gërëm nañ Ibou Dieye Espagne moom mi ngi Sénégal fi mu nekk nii sax gërëm nañ tamit ñi bëgg te Fat Diop Amérique ak ñi bëgg Tektal TV di sonn ci ñun Mamadou Sow Allemagne gërëm nañ ko Pierre Isar ak waa Allemagne bu baax a baax gërëm na ñëpp xewal dikk loraange dakk gërëm na nañ ma Massamba Diop ci sonn na ci tudd bi Petit Sow sonn ci tudd bi ak Cheikhna Diaw Adja Diop euh, ak euh, Jama Kanté bi ak ñoom euh, Mohamed Ndiaye ak ñoom Pierre Hussard ñi ci sonn ñëpp daal mënuñu wax ak soxna Bintu Tou gërëm na leen xewal dikk loraange dakk yoon bu mujj ci biir émission bi numéro Jama Kanté 77 664 08 09 77 664 08 09 beneen bi 77 022 84 60 beneen bi 78 315 53 15 numéro yi am na whatsapp nga dis ko soxla lu mu ci mën mu def ko leen ñu bàyyi yàlla mu xam tëlewul dara te mën na lépp Grand Yoff la nekk bu fi nekkul tamit dina nekk Mali euh, whatsapp bi dina dox nga fekk fi rakkam wala nga fekk ko fi xewal dikk loraa nga dakk Tektal TV télé tollu ko fi